Mohamed Ndiaye kenn mënu koo dendeel amul dendandoo fii ci Kaolack ci mobilisation ak liggéeyal Macky Sall fii nag ay ñaar fukki kaar jóge na fi te ku ne xam na ne heure bii bàyyi sa njaboot muy dem Dakar Mohamed Ndiaye jaral na leen ko. ndax man Ndiaye rax ma nag moo ko jaral ndax tubaar fakkaat la man Ndiaye rax ma dañoo bëgg jàpp ñu jàppale jigéen ñi di leen jox seen financement bu koor jotee man Ndiaye rax ma mi ngi andi suukar mi ngi andi mi ngi andi ceeb. bu tabaski jotee mu bu la say ambolok kon ma njaay rax ma fu wiji dara wuy ji Thiam Omar Samb ak lépp la. premier tour jàllale Macky Sall loolu lañ bëgg té moom la def xanaa bëgg mu jëlaat réew mi rek def ci loo xam ne def ko ci benn président def ko fi moom Macky Sall moo yërëm jigéen ñi moo joxe financement bi moo ànd ak ñëpp. su xamee man Ndiaye daanaka ay militant ba tax ndax ñun Macky Sall bu dee ñëw fii sax. man Ndiaye tubaar fakala ay militant rek lay gis ay militant rek lay gis nag moo tax ñu ñu takku nag ndax man Ndiaye dañ ñoo jàppale li li jaay la mbee wax rek laay wax man Ndiaye moo ñu moo ñu yëg moo ñu safa moo ñu faale. une vingtaine de dem na yéen a gis nii particulier yaa ngi nii mënuñ leen wax nombre bi exactement mais lépp loo xam ne fonk nga moo njaarax ma fay nga ko borom. tey fay nañ leble woon na ko fay nañ ko fii tey borom ci permanence bi ba foog naa kaw la yëpp teg nañ ci seen bët Nous avons plus de 15 bus qui vont dem euh, Dakar. je sais que c'est plus de 1200 femmes et jeunes qui war dem Arena pour euh, congrès national demain le premier. mais nous avons ñoo ci parti ñu donc Nous avons euh, presque 1500 personnes l'ont mobilisé am ay femmes ay jeunes yëpp ñu bokk ci parti yëpp bokk aussi ci ci mouvement yo xamné dañuy soutenir euh, le candidat Macky Sall. Né président Macky Sall mo am majorité donc lii euh, bu ko ñeneen ñi gisee du ma sal tudé ay opposant bu ko gisee dinañ xamné ñom ñoom sax ñu dem élection parce que élection yi président Macky Sall gagné nako ba paré ci premier tour. Ah, yaakaar ay ñun ñun ñëpp benn lañu ñun ñëpp ben lañ ben candidat lañ am moy Macky Sall te yaakaar naa fii amatul beneen enjeu buy boo xam ne euh, bu dul boo xam ne président Macky Sall lañu war a fal premier tour euh, ci élection 2019 bi moo tax ñëpp ay booloo ñëpp a booloo mu nekk waxuma sax parti APR kese mais Benno Bokk Yaakaar majorité présidentielle bi boo leen gisee ñëpp a nekk nekk benn léegi di liggéey ci benn benn objectif boo xam ne mooy dañuy porter suñu candidat euh, Macky Sall au premier tour ci élection 2019 yi di ñëw.